dama si bokk. Mm. te te te dama dama am lu ma naqari. te lu ma naqari. Mm. wax dëgg yàlla yàlla ñu si yàlla dimbali. ba ma ba ma mën koo faj. Mm. parce que bordel bi may gis ci réew mi ak ñi ñu jiite. ak ak juman foutisme bi. ak ñàkk ormal euh, doomu aadama yi sénégalais yi.

téye ko nag ci dëgg téye ko ci rigueur téye ko ci jub mais vrai jub ak ay nit ñu jub parce que réew mi ay nit ñu jub nekkuñu fi ku nekk nag yow yaa xam sa bopp sa digganteek yàlla man dama gëm ni man man gëm naa ni man man damaa jub gëm naa ni lépp lu ma def ci lu bon juumte rek moom ma mën daal waaye du ay tayeef gëm naa ni réew mi il faut ñu defar ko il faut que ñuy wax dëgg te fii amul ay nit ñuy wax dëgg ah si si amul. Mm. bariwul amul mooy bariwul. Mm. bariwul parce que bu bari woon kon yii yëpp du fi xew. Mm. am na ñoo xam ne dañu nelaw ci dëgg. li ko góor googu doon waxee di gis dëgg di dëgg ci dëgg. loolu il faut mu dañ dëgg ci sa tànk. loolu il faut mu dañ fi. il faut que ñuy wax di ko nangu. man nag yàlla dimbali na ma. am naa kattan. Mm-hmm. amna endurance mm-hmm. Dina mer mais je me reprends très vite dans mm-hmm. mes forces bu ma nelawee rek melat neneen yalla dimbali na ma te maa ngi ñaan yalla mu mayma li muy continuer trente quarante ans encore parce que man gëm na ni amna yo xamné il faut ñu def ko ci réew mi tey amna luma nakhri dudu café bi café bi amna lu ci nekk dé amna luma metti il faut que lolu mu dañ ci réew mi bu jaré lu nekk nak man personnellement dina ko def bu jaré lu nekk ba ci ay ndombal tank pour jéem a changer mbir yi danañ ko def dañuy doon yem nag ci ay waxtaan kese mais boo gisee yii tey ji nii hmm. tey ji nii man tey ji nii man j'ai tey aujourd'hui j'ai envie d'être président de la république hmm? Hmm. tey ji nii ak li ma jégg nii sànq y'a une heure de temps man tey dama bëgg nekk président de la république bëggeel nag yàlla rek xam am na ñu ko bëgg te mënuñu ko nekk Diomaye Faye bëgg ko woon yàlla teg ko ko yàlla def ko ko diw ak diw bëggoon nañ ko te yàlla tegu leen ko waye man mi wax ak yéen ci sama intention te sama xol ak fi may nekk di wax ak yow ni mm. dama bëgg nek président de la république mm. j'ai envie d'être président du Sénégal mm. parce que amna yo xamné xam sama bop kese la ci wolu amna luma lu metti torop nak d'accord yalla na yàlla sàmm may ñu xolu muñ <laughs> ak xolu yërmande mm-hmm. yalla yàlla musal ñu ci seytaane ak pexeb non te yalla katan bi mm-hmm. mu kon ne di ñu ko yokal mm-hmm. ndax li ñu bëgg ci réew mi am ci yéene nak juddoo fii ci réew mi bi cim réew daw ñëw ne ñu dañuy am dañu ci war a bokk ci mbir yi dañ ko war a changer parce que fii la ëppee njariñ yal na ko yàlla sotti bu dee intention yu baax kese moo ñu tax a def loolu yëpp yal na ko yàlla def ba mu sotti yal nañ ci avancer bu dee bu dul nag ay intention yu baax yàlla bu ci yàlla def dara intention yëpp yal na ko yàlla tegee nee bu mm-hmm. fekkee ni du dëgg bu fekkee ni du dëgg yal na ma yàlla tegee nee Mhm. D'accord. accord euh, mu mel ni am na loola Dakar yi dinañ ñëwaat si yow léegi-léegi nga wax euh, carrément euh, le fond de tes pensées exactement lan mooy problème bi doyen mhm. Doudou Coulibaly ndax damaa feebaree doyen ba ma ne doyen Doudou Coulibaly leeral ko